الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسانو فيدوبي كوتي تي في جسانو فيدوبي نين لي جال سونو ياي سماك شيخ مريم شيخ ابراهيم نياس خم نغا باخ اك ليغيام تي حضره بي اك ليغا خامل ليغيال نكو واجورا مولانا شيخ ابراهيم نياك رابطنا تي تول بيغا خامل مولي تول القران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون إنا لله وإنا إليه راجعون نيغي جالي ام الاسلاميه نيغي جالي الخليفه الشيخ محمد الماحي متعنا الله ببقائه نيغي جالي مبولي مركم نيغي جالي سيد الرقيه اك مبولي مركم نيغي جالي سيد الامام شيخ احمد تيجاني علي نسيسي نيغي جالي مبولم كلف الدين السنغال ñu ngi jaale mbooleem sénégalais yépp ñi ngi jaale mbooleem Afrique ñi ngi jaale mbooleem àddina ci kii nga xam ne ñi ma tudd ñii ñëpp ñoo ko ñàkk waaye duwut ne benn famille ko ñàkk walla benn xeet ko ñàkk wala benn tariqa ko ñàkk ndax dafa nekkaloon mbooleem xeet wi nekkaloon alquran karim jàng ko tari ko di ko jàngale ba bi muy génn àddina te ku ne xam ne ne wér na ci xadis ne yoon sallallahu alayhi wa sallam wax na ne xayrukum man taallama alqur'ana wa allama ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran ba pare di ko jàngale soxna si ñu ñàkk tey jigéen la joo xam ne moo mën junne góor soxna si ñu ñàkk tey génn na ay professeur ci daaraam ji ñuy jàngale ba xafaard soxna si ñàkk tey génn na ay imma ñuy jiite fu nekk ci àddina bi soxna si ñàkk tey génn na ay kàng ak ay fóode yoo xam ne tey ñu ngi ame ay daara di jàngale alxuraan di taril ay nit ñu bëree bëree bëree bëri te ci loxoom lañ jaar soxna si ñàkk tey baax na ci néew doole yi soxna si ñàkk tey baax na ci ñi amut fuñ dëkk soxna si ñàkk tey baax na ci ñi xiif li Ahmad Mahmoud ibnu Mouhamadou Kabir taggee woon baayam jikko yooyu noonu dafa nekk ci soxna si du dofi yarhamuhu wal jaaru yukrimuhu wal aabu yasturuhu fa alhamdulilahi wabnu sabili yunasihi ahibatahu badlan wa awtaanahu fa alhamdulilahi ku néew doole mu yërëm la ku dëkk nekk dëkkandooram mu teral la képp ku am ayib mu suturaal la doxandeem bu ñëw ba dugg këram da nga bëgg a ba fàtte say xarit ak say mbokk ci lan ci may la ak ci jàngal la ak ci leel la ummal islaam yee ñàkk na ku mag alquran ñàkk na ku mag xalimba yi ñàkk nañ ku mag alliwa yi ñàkk nañ ku mag kaamil bi ñàkk na ku mag demoon na ba nga xam ne waxtaanam lépp daanaka dafa jege alquran ndax mawdu bu ñëw rek am na aaye bu muy indi pour dëppoog loolu noonu law kaanati nisaawu kaman faqat naa la fuddalati nisaawu ala rijaali ki ñàkk nii tey bu jigéen ñëpp meloon ni moom kon jigéen ñi ñooy gën góor ñi ñi ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu ngi ñaan yàlla mu jàngal ñu damm-damm bi. amiin waaw Cheikh Abdoul Malick eh, nga jiite jaayisatul Qur'an eh, bi nga xam ne moo nekk fii ci Medina Baye musabaqatul Qur'an bi nga xam ne ñu ngi koy defa ah, ci Medina Baye weeru koor bu jot ñu gis tamit eh, Cheikh Mariam Ibrahima Niass. loolu liggéey na ci liggéey bu am solo daan génne ay xale yoo xam ne moo leen di tàggat fii ci këram di leen yóbbu ñuy présenté Medina ci fu nekk ci àddina bi loo ñuy dolli ci loolu. loolu yàlla la damay jaale Cheikh Mariam ci turu prix Cheikh Ibrahim international pour le récital du Saint Coran ak ci turu membre yi nekk ci prix boobu yëpp di ci liggéey ndax at mu jot ay jeexitalam dana feeñ ci concours boobu noonu te ëpp na fanweeri at. ay xaleem ñoo daan génn fii Sénégal di dem ci yeneen réew di siggil Sénégal ci jàng alquran kon tey bu ñu ko ñàkkee li ma la wax sànq mooy ne alquran moo ñàkk alquran mooy ñàkk awalaa yarawna annaa naati larda nanqusuha min atrafiha mu fassiru ni dañoo wax ne yàlla du wàññi suuf ci peggam yi waaye nit ñu baax ñi am xam-xam seen wàññeeku dafay mel ni suuf dafay wàññeeku te kii kenn la ci ñooñu baayam gannaaw bi mu taree alquran moom Cheikh maryam ci kanami baayam ci at yu néew baayam jël ko dénk ko muqaddamul baraka Cheikh Alhaaj Omar Kan mu nekk dakaar di barab boo xam ne alquran tumuranke woon na fa mu dëkk ci kër kër goo xam ne dafa dend ak cinéma ci lu matut dix mètres dend ci lu matut cinquante mu téye xale yi di leen yar di def seen dënn alquran ba jàng alquran gënal leen dem cinéma jàng alquran gënal leen dem discothèque karaama boobu baayam ñaanoon yàlla ne ko wàlli wu ne am nga karaama boo ko jagleel ni ki nga xamante ne yonant bu ne am na mojisa bu mu jagoo mu ne ko yow yàlla comme walu bu ne am na karaama ngi lay ñaan nga defal ma alquran muy sama karam fal taj'alan xifda kitabikal karim karamati ila liqa'ikal azim shawqi wa hubbi fika laa yashfihi siwa hululi wa irtihali fihi yow yàlla yàlla nga ma defal alquran muy sama karama ba kero ngi may dajje ak yow kero ngi may dajje ba kero ngi may dajje ak yow ba kero man ak samay njabot ak samay talibé ñun ñëpp ñiy ak yow loolu moy ba kërok yowmal qiyaamati ndax mo ne tuqallibul a'yan bil a'yan bay daf ne yalla ngay soppi tanef yi di indi yenen tanef lu demee ni sadma la bu metti waye ci barke ñaanu Cheikh Ibrahim waxtu nekk rek dañuy gis lo xamne ne fay jang dam dam bobu non yalla ñiko yalla jangal and ak ne ki ñak tay ku melni ni jafena waxna la ci commencement bi ne la junnee góor buñ len dajale ndaw si mo len man soxna si mo len man cheikh Mariam mo len man jugge fi dem Dakar di góorgóorlu di jangale di jangale ba mujj gi monde islamique ak monde arab yeb xam nañ kan mooy Cheikh Marème seen télévision yi gën a mag di jóge ci seeni réew di ñëw di def ak moom interview loolu yéeme na doomi Afrique yëpp di ñëw foofu noonu di jàng di jël alquran kama la ndax du ne képp ku jàng alquran rek nam wàccee noonu nga koy jàngee waaye moom ni mu wàccee noonu la ko doon defee ci dënn yi noonu la ko bàyyee ci dënn ñim yar ñim yar tamit. noonu lañ koy joxe kon damm-damm la bu rëy ci kër Cheikh Ibrahim damm-damm la bu rëy ci tariqa tijaniya damm-damm bu rëy la ci diine lislaam waaye damm-damm bu rëy la ci àddina wërngal këpp moo xam ñu doon jullit ak ñu doon jullit ndax moom jëmmi yërmaane la dafa dafa am yërmaane ci doomu aadama ju mën a gis ñu ngi ñaan yàlla mu jàngal ñu ko ñu ngi ñaan yàlla mu taas ñu ci barkeem. Abdul Malik euh, jamono yi ñu toll daf ñuy fàttali li Baye waxoon bi El Hadj Mame Abdou Niang génne àddina xat euh, faqat fuqidat budurun indaha euh, kon ñu ñaan rek yàlla jagal ñu dem dem yooyu. dégg mu baax. ma jamono yi ñu toll daf ñuy fàttali rek jamono bi El Hadj Mame Abdou génne àddina li ci Baye waxoon. ولا رب لا تزرها قاوية ولتكسرن خيرها الحمد لله لولو رك موم موي ان شاء الله تعالى مام عبدو دا فا ген ادنا سي جامونو جو خامتاني ني أه، فايدا بي دافكو سوخلو وون تگون سي توتي ني گيس نينن ньо خامن ني نيغي نيو ميم بون تاخاو تاخواي مام عبدو جيگي نانكو لول لول نك ñaan gi nga tari léegi nii te bàyyi ñaan ko loolu mooy continuer loolu mooy continuer ci xadra Mawlana Cheikh Ibrahim alquran dafay des di nekk karaama Cheikh Ibrahim ba keroog baay di daje ak mbooloo mi ba keroog baay di ànd ak mbooloo mi di daje ak borom bi loolu dafay sax ñi ngi wax daal ñàkk nañ ko màgg yàlla. moo mën a jàng damm damm yàlla nañu ko yàlla jangal bi jaay seen wujur sallallahu alayhi wa ngi leen koy jaale yéen ñëpp ñu ngi koy jaale mbooleem jullit ñi ñu ngi koy jaale président de la république euh, di ko jaale gouvernement bi di ko jaale kilifa diine yi kilifa aada yi nekk ci réew mi yëpp di ko jaale journaliste yi di gërëm di rafetlu seen taxawaay di leen ñaanal yàlla seen bëgg-bëgg yéen a ko xam yàlla nañ leen ko yàlla defal defal ñu ko ñun ñëpp ci barke soxna si allahumma salli ala sayyidina jërëjëf euh, Mariama Niass doy na di daal jigéen jëlaw ci ci koom bi man Mariam ci baay moo di Mariam Mar yàlla naan Mariam mu kaw ko fuli tv am ngeen ngeen yéen ñi ànd ak gaal yéenay liggéey faydu baay bi si ji barahama fuli oh, tv am ngeen jaarama yéen ya, ñi ànd ak baay ya, nah, yéenay liggéey faydu baay bi barahama ñu ngi di gërëm ñu ngi leen di ñaanal tv